kilifa diine yi liñ ciy xalaat mooy saaga magistrat yi xeex ak policiers yi xeex ak gendarmerie xaadim ndaw yi jar nañoo woo jar nañoo mobiliser jar nañoo yee jar nañoo ubbi seen bët ngir ñu ràññee lii njëriñu Sénégal xaadim nag liggéey boobu boo ci ñëwee ànd ak suñu mag suñu kilifa mose le premier ministre Amadou Ba dañ la ci yaatal ndaxte war wi waar bi dafa day dafa yaatu bi nga egsee gis nañ ñi nga àndal gis nañ sa mbokk yi jóge Mbàkke gis nañ ñu jóge fii gis nañ suñu mbokk yi jóge Touba may nuyu suñu kilifa yii fi fekk defe naa ne bâche boo xam ne ñetti galasu fi daje ñëpp doon sëtu sëñ Fall lu bariwul ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax xaadim na sa xel dal Benno Bokk Yaakaar li ko samp yaatu la ak ubbeeku président Macky Sall dañu ànd ak moom 2010 2011 2012 di wër Sénégal fu mu dem rek fu bokk si ñëw bees mu ubbil la jàppale la ba nga mën a liggéey ba yaatu fi xamal ne Benno Bokk Yaakaar Bouna Kanté dina la yaatal Pape Maye Diop dina la yaatal docteur Malick Diop dina la yaatal man nag duma la yaatal dama lay teg sama ginnaaw ànd ak yow ñu liggéeyal président Macky Sall ndaxte mbooloo mii fi daje mbooloo mu ñu am yaakaar la te képp ku leen mën a mobiliser danañ taxaw ngir mën a jàppale président ni ko premier ministre bëggee te di ci soññee donc loolu mooy kàddu yi di ñaanal dalal jàmm.